tey dinaa wax ci le cas de Bougane parce que gis naa ne coow li bari na te ñu baree baree baree bari xamuñu exactement Bougane li mu def garaaw gi mu garaaw ak danger yi nga xam ne mën nañ ko ci fekk tey ji buggaan li mu def nii fii Sénégal la ko mën a defee mu jikko mais tey bu ko defoon ci yeneen dëkk yi nga xam ne tey xañ na ñooñu gën a xam exactement sécurité président ni muy doxee jàpp naa ne Bougane kon dañ naan tey lañ koy denc wala suba lañ koy suuli parce que dañ koy ray bala bopp lañ koy dóor pour la raison de sécurité présidence te su boobaa Bougane mooy perte ay mbokkam perte ñi ko topp perte ndax Bougane yëfu dof la def yëfu reewande yëfu xamadi yëfu nit koo xam ne moo tax man su ma déggee buggaan naan day jaay homme d'état di jaay ne dafa xam état ba pare di def yëfu nit ku sew gee yëfu ku tuuti kee yëfu waye waye yee yëfu nit ku ñàkk xorom lee ngeen war a xam ne Bougane nii vraiment nag faju ko jot na sëkk sëkk sëkk ndax li mu def démbu kenn mënu koo jaawatle ak xaru kenn mënu koo jaawatle ak xaru ndax yow la gendarmerie nationale bi ñu la wax ak yow ci njekk ak discipline xamal la ne zone bii président de la république moo fi nekk kenn amul droit dugg fekk ko ci biir muy yow muy sa morom <coughs> donc taxawal nga xaar bu président bi génne ngay soo ko mën a dugg. pour la raison de sécurité présidence Bougane tontu leen tontu bu ñàkk kersa ne ko su fekkee ne say supérieur ñoo la digal lii dites à vos sec à vos euh, supérieurs que Bougane sera à Bog à à à nu mu tuddati à à Bakel maanaam par force dinaa dugg biir Bakel wax ko say supérieur da ngay seet lii.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 sénégalais yu bare bari xamuñu danger ak li nga xam ne ñoo ci mënoon fekk te Bougane yéen ñëpp bu ngeen gisee li mu def da ngeen di xam ne lii lu mu préparer la ndax Bougane la muy def Bakel mënoon naa bàyyi ba président jóge Bakel mu def ko mais dafa bàyyi ba jour mi nga xam ne président mi ngi Bakel Bougane ànd ak cortège am ànd ak ay garde du am ànd ak ay journalistes yu dul jeex ak ay caméraman pour xam na ne foofu fu mu mën a jar candaal dana fa am mu ne leen kaay leen lu mën a xew filme leen pour ma mën a vilipender la gouvernement du Sénégal pour gëmloo leen ni ñii dañ may jaay doole alors que c'est faux li mu def bu fekkoon tey da ko def ci beneen réew fu mel ne Amérique wala France tey Bougane dañ koy dóor balu bopp barke alxuraan sans xalaat day dee dañ koy rey parce que la sécurité présidence kenn du ñuy du ko fowe kenn du ci maslaa kenn du ci wut xarit wala mbokk tey jii mbokkum deretam rakkam magam ku mën a doon bu ñëwoon tey bëgg a dugg biir Bakel nee ñu def Bougane lañ koy def parce que fee pat parloo amu fa neexle amu fa ñii xamuñu kan mooy Bougane xamuñu kan mooy rakku président xamuñu kan mooy magu président seen liggéey dañuy def te dañ koy def ci normal te Bougane li ko may sens mooy dafa tase ak les gendarmes mais su duggoon ba ci biir ba des ak sécurité bi nga xam ne tey ñoo yore président de la république kon Bougane mooy nar a nekk opposant bi ñu njëkk rey ci réew mi ginnaaw Mamadou Dia ci demi ci ci nguur gi ndax daañ ko dóor bala bopp par force revue de tempéré dafa am loo xam ne kenn du ci maslaha bu ñu la arrêté sa loxo sax waru ko waratoo ko yëkkati sa loxo les mains en l'air say loxo warta jug dafa war a wàcc tey buggaan di xët-xët di mel ne kuy xeex ak ñoom ne par force day dugg biir Bakel mel ne ku narul jàmm kon damay wax ne gis nga képp ku taxaw naan da ngay jëlal par Bougane wala nga taxaw naan da ngay défendre Bougane yow ak Bougane yéen a yem xamoo leen seen droit xamoo leen seen devoir te li gën a bon ci àdduna mooy nit koo xam ne xamoo say droit xamoo sa devoir man damaa xamul Bougane dafa dof damaa xamul dafa réew damaa xamul dafa katakay ni damaa xamul dafay jaay sañ-sañ ak bandi bandilu mais damaa bëgg bu koy jaay mu jaay ko ailleurs te xam ne la secret maanaam la sécurité Euh, du président de la république du ay caaxaan te kenn du ko fowee te gis nga lu mel nii j'espère bien que ne à la prochaine bis bu ko defee lu ko dal na ay mbokkam xam ne moom ci boppam mooy seul et unique responsable bi nga xam ne moo rey boppam Amérique day rey nañ fa nit ci lii buggaan def France aussi rey nañ fa nit ci lii buggaan def parce que sécurité président moo ëpp njariñ lépp moo ëpp solo lépp rawatina Sénégal gi nga xam ne dañoo yor ñaari jeunes yoo xam ne ñooy le plus jeune ci histoire Afrique yoo xam ne ñoo mas daane ab système bu lëmu te système bi jamono bi mën nañ ne maanaam tër nañ ko ba rendi ko mais lenn moo ci des mooy ñu wartu ko génne suuli te jàpp nañu ay bànqaasam am na yu nooy ba tey te bànqaas yooyu buggaan mii ci la bokk ak yeneen autre politiciens yoo xam ne ñu ngi ci biir Sénégal te lu nekk maanaam lu nekk ñoom pour ñoom tous les moyens sont bons pour détruire gouvernement bi pour yàqal leen pour def leen lu nekk moo tax sécurité président bu nekkoon benn ci jamono yee passé ci at yee jamono bi dafa war a nekk trente wala cinquante wala cent dañ ko war a yokk parce que ku ne xam na ne ay gone ñu ndaw ñoo xam ne amaguñ sax cinquante yaa ngi dégg. ñëw daane ay mag yoo xam ne depuis 1960 ñu ngi ne ci réew mi di dundee réew mi seen xol du ma sa sedd mukk ci ñoom te lépp luñ man pour faagaagal leen dañ ko def barki de mu dégg ngeen jëmm ji di Pape Djibril Fall mu wax wax joo xam ne sëb la la ko nga ca biir parce que Pape Djibril Fall bu taxawee ne Ousmane Sonko moom xam na ne nekkatul ci sécurité loolu moo tax mu dem jël benn saal ngir dajale fa ay militant am parce que ñemewu koo defee ci yeneen rue yi maanaam dans la rue wala ci yeneen esplanade yi kon dafa mel comme si que ne Pape Djibril boobu xaj na am na ñoom lu ñuy préparé wala am na lu ñu xam xam ngeen li ma leen wax parce que Pape Djibril bu ne Ousmane Sonko ñemewul dem ci yeneen salle yi ñemewul dem ci yeneen bërëb yi wala yeneen esplanade yi mu dem di jël ab salle di tëju ci salle moo ko militant moom kon dafa mel comme si que ne xam na ne moom nekkatul ci sécurité dégg ngeen li ma leen wax. léegi jëlal wax ci Pape Djibril Fall ji nga comparé ko ak waxi Bougane ci Bougane tey imaginer leen tey mu créé woon fa benn benn scandale tey jii mën na àgg fu nekk te loolu rafetul ñu ne dëkk bi président moo fi nekk ngeen gis fa ay tir de bal wala ay nangam ak nangam loolu lu ko gën a ñaaw amul te Bougane lool kese la bëggoon loolu kese la bëggoon maa ngi gis nag télém bi muy Sen TV ak journal bii de la Tribune ñu dellu encore une fois ci seeni fen ak ci seeni manipulation ñu ne Bakel démb da doon tàkk ndax li nga xam ne arrêté nañ fa Bougane Gueye Dany alors que Bougane waxuma la Bakel tàkk sax waaye dem Bakel sax taru añ sax tooguñ ko far ndax ndax fair play Bakel démb añ sax tooguñ ko ndax fair play la turbine di fen ak journal bi ak seen télé bi nga xam ne maanaam mooy seen TV naan actuellement Bakel ma ngay tàkk nangam ak i nangam nangam ak i nangam nangam ak i génn ay image yoo xam ne kenn xamul fan lañ ko jëlee xam nga TFM dafa nokk fi temps yële passé génne image yi 2018 ne Ousmane Sonko bi mu demee Touba la tey jii Sen TV defaat na ko génn image yoo xam ne jamono bi Sénégal di tàkk la ñu xool benn sébu rek daal koy jàllale daan ne voilà gis ngeen Bakel exactement mi ngi tàkk parce que Bougane bi nga xam ne jàpp nañ ko Bougane kan la mën a tax a jóg ba ñu ba ba Bakel di jóg di taal. effectivement gis ngeen ay jeunes Bakel génn démenti loolu Sen TV wax ak la tribune parce que ñii li ñu nekk dañ maanaam vous set dans la merde li ñu nekk ñoom xamuñ ko sax parce que li ñu def nii xamuñu exactement conséquence bi ci nekk tey jii nii yàlla dogal na ñu ngi dund ba di ko nettali ñoo war a sant yàlla waaye gis nga lii bu fekkoon dafa am ci yeneen dëkk kon bugaan ndayam dana ko ñàkk baayam dana ko ñàkk. ay nitam daañ ko ñàkk ndax dañ koy rey te su boobaa nag kenn du laaj lu tax ñu rey waa ji enquête du ci juddu dara du ci juddu ndax am na loo xam ne yoon la te la loi c'est la loi force restera à la loi kon bugaan damaa foog ne dundam gi da koo sàppi mu bëgg a xaru parce que def na lu nekk pour ñu yóbbu ko kaso saaga na fi premier ministre xas na fi président de la république léegi nag li ko desoon mooy car cortège président de la république wala boog fekki cortège président de la république ci biir indi fa ay ruubel ay scandale te buggaan ku ne xam ne bu fa duggoon dana fa wax waxi dof wala mu def fa loo xam ne ni tey du méngoo ak personnalité président de la république moo tax président loo gàtt xam-xam gàtt xam-xam war ngaa xam ne fu dugg da ngaa war a xaar ban génn nga soog a dugg su fekkee jàmm moo la tax a jóg ak salaam mais nga ànd ak sa cortège ànd ak say journaliste ànd ak say photographe ak say caméraman ak nekk pour di waajal sa benn scénario scénario bi de jàll na de ci yow xëy na peut-être mais doo ko fekk doo ko fekk man nag li may laaj mooy buggaan sera à Bakel wala buggaan seraa à prison parce que Bougane dafa jàppoon ne moom tekki na dara ci réew mi xam nga jamono bii li leen métti mooy boycott bi leen Sénégal yi boycotté man nag tey danaa ko tudd ndax pour Sénégal yi xam exactement lu tax mais jërtoon tudd mais Bougane nit la koo xam ne lii yoon wi mu jël bu ko wàccut na ko wóor mi ngi foowee dundam gi ndax président mën naa woyof lool comme ku mel ne nga xam ne boo gisee moo la gën a yaru moo la ëpp dal mais jàppal ne ku diis gann gann gann gann gann gann ngay gis parce que nag mooy président de tous les sénégalais lu mu mën a xew wuroo ko xeet baye boobu mu nekkoon sa employé sax tey mu nekk président de la république jàppal ne tey mooy sa baay ci réew mi la per de nation père de la nation donc nit la koo xam ne waroo ko ñàkkal fayda waroo ko yàpp da nga ko war a jox respect te Bougane dafa mel ne ko yàpp président de la république jërë ngeen jëf.